وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أتيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون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 أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بدر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعدي من جد من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا زيادة واحدة فإذا هم خامدون يا أدردا على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما لقنا من قبل من القرون يا أمنهم وهم إليهم لا يرجعون خير كل لما جميع لدينا مدرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمري وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى ادق الأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهير وكل في فلك يسبهون وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المسون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاء إلى حين فإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تاتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا أنا معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا ضيادا واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ورفق في الزور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من باسنا من مرقدنا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون فإن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهدرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم قم اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم تؤدون إسلام اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أقوائهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأني يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمر ننقص في الخلق أفلا تعقلون وما علمناه السيرة وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما أملت أيدينا أن آمن فهم لا مالكون فذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون فلا يزن قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه ما يهي الإزام وهي رميم قل هل الذي أنساها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أن يخلق مثلهم بلي وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين الدارجي تيرنو عمر sa turando lañ تودي موي تيرنو عمر كوركا با موم لا نيو تودي كو دارجي كوكو نا كين لا la نيتو يالله nit ku amoon taxawaay koo xamante ne alquran sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam diine rek a ko ñoroon yàlla dogal mu génn aduna nag jur sama papa nekkoon koo xamante ne ñëpp xamoon nañ ko ci taxawaayam te lépp lu mu mos a ñaan sunu borom subhanahu wa taala def ko moo tax bi ñu sosee daara ji ñu dippee ko ko kon sa turandoo la yàlla dogal nag biñ ko commencé ak léegi daara ji mu ngi commencé di bëgg a yàgg waaye nag Thierno Oumar ah dama yaakaar ni dafa am mit ñoo xamante ne xëy na jotuñu ci woon comme yàlla dogal na ni nag Thiès Info ñëw na fi te xam naa ni bu ko jàllalee yàlla mën na def sutura ñi ko war a yëgg yëgg ak ñi ko war a dégg yëpp danañ ko dégg xale bi nga xamante ne nag Thierno Oumar moom moo réeroon xale boobu Thierno Oumar taxawaay bi ngeen ci taxaw nun mënulu leen ko fay yàlla rek moo leen mën a fay taxaw ngeen ci taxawaay bu am solo Thierno Oumar Sane particulièrement nag yow ndax keroog bi ma la ko waxee da nga ci def yitte taxaw ci sa kéemtalaayal kattan pour xale bi feeñ yàlla dogal nag xale bi feeñ na fa mu feeñee mooy dëkk bu ñuy wax Kaolack ca garage bu ñuy wax Nioro fa la nekkoon yàlla dogal mu feeñ te gannaaw yàlla ci maanaam laa biir ak yéene bi ngeen ci am ci la yàlla subhanahu wa taala jóggi ba li nu bëggoon nu am ko mu niital nu ko ba yàlla dogal ñu jot ko comme Thierno Umar noonu la demee daara ji nag alhamdulilah Thierno Umar néew nañ ci doole lool. néew nañu doole lool ci daara ji am na ci nag nit ñoo xamante ne jàpp nañ ci ku mel ni alhaaji Mor Gueye sopp na bi jël na dix tonnes ciment jox ma yàlla dogal ma def ko ci ndax li yéen a ko gis daanaka biñ ko taxawee léegi même weñ amuñu sax béton boo xamante ne Thierno mën nañ koo sole poto yi waxantuma laak nag yeggale ko kon nag yaakaar naa ni xëy na tey moom tey la yàlla doon xaar xëy na bu yàlla dogalee mu tasaaroo ba yegg fa mu war a yegg yegg ci ñi mu war a yegg ci ñoom yaakaar naa yàlla mën na cee def sutura te beneen bi ci des itam soxna Maram Faye Sall mi nga xamante ne gis nañu taxawaayam ci réew mi ak ci daara yi yàlla dogal na ni nun fii ci Thiès képp ku fi yar daara Thierno Oumar Sarr xam nga ni daaray alquran ni wér taalibe yi yalwaan yëpp seen association man mii maa ko jiite. waaye li muy dimbali daara yi amul benn daara bu nekk Thiès te bokk ci sunu association boo xamante ne li muy dimbali mos na cee jot dara du liibar du kilo du paquetu suukar buñ ci mos a jot. te nag ñun nii ñoo yor xale yi yalwaan ñii yalwaan nag yaakaar naa ni ku yor looy dimbali. ni yalwaan ñoom ñoo gën a yell ñoo gën a jaadu nga jox leen ko ndax kii amul ba yor potam di génn di dugg ci këri nit ñi di yalwaan kooku Umar boo amee looy saraxe wala nga am looy dimbali jox ko kooku moo gën a jaadu waaye fekk koo xamante ne dafa am ay étage yor ay oto nga am looy saraxe wala looy dimbali nga jox ko ko sëñ bi dafa mel ni nga fekk ndaal mi fees ndaal bi fees dell ngay maanaam tànkaat di ci dolli lu fees la noppi nag yaakaar naa ne maanaam ki feesalul kooku la ñu war a duyal waaye ki fees la nopp moom kenn war ko duyal yàlla dogal ne daara am na résultat ndax li tox ma ne am na résultat bari na ci ay xale yi ngay gis ñuy taxaw am na ci ñoo xamante ne wàcce nañu alquran surtout kii nii nga gis sa turandoolu Umar Ba yàlla dogal na bi mu wàccee alquran ak léegi ëpp na ñetti at te am na ñu ko gën a tuuti kii itam gis mu ngi nii wàcc na alquranul karim kii mu ngi nii wàcc na alquran kii mu ngi nii wàcc na alquran kii wàcc na alquran kii wàcc na ki wàcce na alquran ki tam cerno Umar mu ngi nii wàcce na alquranul karim cerno Moussa musa nga am duubi jéegi duubi jéegi maanaam juróom-ñaari at nga eh, te wacce nga alquran eh, est-ce que oustaz eh, mu ngi lay topato ni mu waré mu ngi lay topato yéen gi jang jàng ban waxtu ngeen ñu ci daara ji 9 h 9 h ngeen jang ba kañ ba 1h ba 1h alors euh, nan ngeen di def manam ci walu bu ngeen yalwaanee nek ci mbedd mi di yalwaan ak ni mel euh, ci yan heure la leen di fekk noddee deux heures rek ñu dikkaat. bu ñu noddee deux heures ngeen dikkaat maanaam yéen sax suñu leen ne sëriñ bi ne indi ngeen indi ko bis téeméer wala juróom fukk. déedéet. Mhm. amul tamit kenn kuñ fiy jàpp di ko dóor rek dóor yu metti yoo xamante ne ay waajuram day mer. déedéet kon yéen a ngi ci ay conditions yu tax. Ah, ah. tey ngeen di sant yàlla. waaw man li ma ciy dolli sax Thierno man moom mii. Mhm. Ah, biñ ma ko joxee gannaaw yàlla ci juróom benn at la am fi mu nii classe su sixième lay def am na intrant sixième man mii maa ko dugal. maa dugal am na entrée mhm. fi mu nekk nii papam bi ma koy jox pour naa ko jàngal alquran rek moo taxoon mhm. ma gis ne adduna dafay dox mhm. li gars yi di wax ne boo jàngee alquran kese dafa mel ne benn laaf rek nga am ku a nag yor benn laaf yaakaar naa ni laaf du tax nit doo moo tax ma xalaat ni li borom xam-xam yi wax ni maa ahsana diina wa dunia iza jatamaa la baraka allahu fi dunia bila diini nee nañu adduna bu àndeeg àllaaxira bu ànd ak àdduna nee na dara dàqu ko dara gënu ko rafet comme nag sunu maam yi ñoom li nu miisoon mooy jàng alquran kese lañu doon def français bi daanaka daawuñu ko jàngale ndax ba ñu jàpp ni dañoo jàppoon ni ku jël sa doom téye ci loxoom yóbbu école hmm. bisu yowmal qiyaamati dana téyewaat sa loxo yóbbu la safara man nag biñ ma ko joxee ma xam ni ku yokkul yaa wàññi mm-hmm. am na lu maam yi liggéey nun bu ñu ñëwee wuutu leen liggéey bi war na ñoo yokk gis nii maanaam Adama Ball tudd moom itam ñoo ñoo bokkoon dugg mm-hmm. dogal kii am entrée en sixième moom amu ko moom fi mu nekk nii mm-hmm. entrée en sixième lay def fi mu nekk nii fi ne ñetti essais yi ñu def yëpp moom moo ngi nii ko Basiru mu ngi nii kii wàcc na alquran ni ma la ko waxee. Mhm. bi ma ko inscrire daaw laa ko inscrire depuis bi mu duggee ba léegi premier rek lay premier lay ci école la ñuy jàngee école Alilo bi fi nekk mooy jàmm gën. jàmm gën mhm. moom mi Basir mu ngi nii foofu lay jàngee. Mhm. pour wan la ni Eh, bu jàppuma maanaam bëri na nit ñi ñu daara yu ñuy def man gëwuma loolu dama jàpp ni nit war naa soppi mhm. loo gis mu méngoog jamono te du wàññi dara ci sa diine du yàq dara ci ngor mhm. te mën naa defar société bi yaakaar naa kenn ku ne nga sof ko ca mhm. ci sa liggéey du wàññi dara moo tax man nag noon ñu ngi nii amul kenn ku may yebal ca marché ba amul kenn ku may yebal ci garage ba te yàlla dogal na ni nga leen gisee 9 heures ci suba boo ñëwee ci kër ga fekk leen ñuy jàng ngoon gi gis nga fi ne dañuy yalwaani tisbaar deux heures dana fekk ñu ñibbisi bu ñu wàccee tisbaar bu ñu ñëwee tisbaar ñu jàng ba cinq bu ñu wàccee ñoom moom seen bopp boo ñëwee ci buntu ba dégg leen fekk ñuy fubal. Mhm. dégg fekk ñoom ñëpp ñu ne ci terrain bi du fubal mhm. kon man buntu xataalu ma leen xatalu ma leen sonalu ma leen li ma bëgg mooy nañu jàng ma yar leen ba ëllëg bu ko defee ñu mën a taxawu réew mi te nag yaakaar naa ni ku génn ci daara ji ñu yar ko mu jàng école bu boolee ñaari fu mu taxaw ëllëg yaakaar naa ni ñëpp danañ ko seet ñëpp danañ ko naw ñëpp danañ ko fonk te du bokk nag du bokk nag ci ñi nga xamante dañooy këpp kees bëri na ko foo koo fekk muy taal ponu ñi fiy taal ponu yi mhm. di toj maanaam biis yi yaakaar naa ni nii jóge ci daara yi de bokkuñu ci. phénomène bii nga xamante ne moo am léegi Thierno Oumar mooy xale yi ñuy sàcc. Mhm. vraiment problème la boo xamante ne ëlëm na képp koo xamante ne rek euh, way jur nga wala ngay kilifa wala ngay sëriñ ëlëm na la. Mhm. ndax tey jii ñun suñu xale yi bu ñu loon sunu boo gis ba tabax bi int bii internat la. Mhm. damaa bëgg bu yeggee nga xamante ne xale yi dootuñu taxaw mukk ci mbedd mi di yalwaan. loolu laa bëgg moo tax ma def bee du internat fi ngeen jógee mooy sama këru bopp comme amaguma woon fu xale yi mën a nekk moo tax ma def leen ci sama kër ñu nekk fa waaye xam ngeen ni kër gi xat na daara mënu fa nekk waaye nag ku ku ñàkk yaay moom namp maam mais dama bëggoon fii bu yeggee fii internat lay doon nga xamante ne dootu ñu yalwaani dootu ñu taxawati di di di tàllal kenn loxo léegi nag xale yi di yi ñuy fëkk di leen yóbbu damay wax ni part de responsabilité way jur yi mu ngi ci ndax doom ndénkaane la bu la ko yàlla joxee war nga koo saytu war nga koo taxaw te am na nit ñoo xamante ne jur la ñuy def waaye yar moom waxuñu ci dara jur nag yomb na Umar maay waaye jur yar toppatoo moo jafe am na nit ñu bëri dañuy yafal mais yaruñu kon nag nit ñitam war na ñoo war nañoo lu ku yàlla jox njaboot ndax nit dund na ba deete amul doom bu la yàlla joxee doom nag da xam ne ndénkaane la ndénkaane gi la yàlla jox nag saytu ko sàmm ko toppatoo ko ba ëllëg boo taxawee ci kanamu yàlla subhanahu wa taala bu la laajee li ma la joxoon nan nga ko yoree woon nga mën koo rendre compte fekk doo ca rus doo ca sëgg doo ci am problème. aspect bi may laase mooy euh, oustaz Iran Ndaw mi nekk euh, seen seen TV nekk si FM. Mhm. moom itam am na ci taxawaay ndax depuis boobale mu ngi ciy jàpp. Seydi Jaxate itam vraiment am na ci taxawaay mu ngi ciy jàpp moom itam ndax lu tolloog 5 tonnes mbaa 6 6 tonnes ciment moo ma ko jox pour naa ko ci def kon bi sa weewu tànk bala ñu nekk ci bitim réew wala ñu nekk ci yeneen dëkk di jàpp ci daara ji ni yàlla may dara te ñu nekk ci biir dëkk bi ñoom lay njëkk a woo nañu ñëw jàpp ci daara ji soirée EFIS mu ngi fi day dimbale te yàlla rek tax kenn ku ne xam na ni Mor Gueye sopp na bi moom itam ni ma la ko waxee woon sànq fukki tonu ciment def na ko ci soxna Hawa Diallo France def na ci tonu ciment waaye soxna Astou Gueye Ndiaye moom itam def na ci waaye soxna madame Faye moom itam jàpp na ci kon nag dama bëgg képp ku wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah nga xamante ne gëm nga yàlla gëm nga yonente bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi lay woo ci daara ji lépp loo ci mën nga jàpp ko ci ku ci bëgg a jàpp nag yomb na numéro bi 77 la 573 15 76 te xam naa ni am na ñu ko mën a tabax ba jox ma caabi te sama dërëm du ci dem ndax nag jàpp naa ni tey caaxaan yii ngeen di dégg seen Umar gars yi di ci def ay milliards. ak ñi nga xamante ne ñooy woote maanaam grand grand grand théâtre bi ña fay woote sëñ bi maanaam di battre te loo xamante ne yow loo joxe rek maanaam dañ la ko nara a dume ëllëg nga def ko fii muy yàlla dencal la ko mhm. ëllëgal ci biir boo demee dajeeg moom mu fay la ndax wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu yàlla nee na lépp loo xamante ne joxe ngeen ko na ngeen xam ne du loolee ñàkk man yàlla maa ko jël denc ko boo leen ñëwee ma fay leen ko mu nekk seen kiraay ëllëg mekk nekk tam lu leen di sauver ëllëg te bàmmeel ak biir rek ñoo nuroo loo deful ci biir doo ko fa fekk waaye loo deful ci bàmmeel itam doo ko fa fekk kon nag borom barke yi fi nekk mhm. sëriñu daara yi politiciens yi borom barke yi képp ku yàlla may dara rek maa ngi lay woo pour na nga ñëw jàpp ci daara ji te yàlla rek a tax. macha allah te bëgg naa sunu conférence bi ren. la 30 juin bu ma sañoon nag. bala ñu cay yegg danañ ko ubbi. boole ko conférence bi nag bu ko defee intégré ko loolu laa ci bëgg wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.